man naa ñëw personnellement pour waxtaan ak yéen euh, ñii liggéey fii moomuñ kër ñi nekk ci mbedd mi ñoo ci gën a say parce nekk ci mbedd ñooy fay li ngeen di fay kee di fay kee di fay moom lañ leen di fay kon ñoom dañoo war a respecter ñi nekk ci dëkk mën naa bàyyi lu ne ñu ñu bàyyi ko mais maa ngi toog weer di xaar. ay nit dikk li ma wax ne aw ma ay nit dikk li ne ma aw ma kayit aw ma dañu xam lu nekk ci kayit judd am na ñoo xam ne dañoo war a jàngi am na ñoo xam dañoo war a def nag laa jël décision man sama bopp dem jàngi ko ba man ko ñëw ne leen da ngeen koy def wala ñun ñu def ko ci kanam tuuti ngeen ñëw ñu defaral leen ko incha allah ngeen dem jërëjëf léegi nag c'est-à-dire li ëpp waaw waaw

si déclaration da ngeen ñëw ñu def ko incha allah amul benn ndax man la lu suba bu ma signé moom bu dikkatee mënatu ko def voilà